na ji woon ci réew mi far na fi tëral ay bakkan libération ak réew mi quotidien ñu seen xëtu njëkk ñaari doomi aadama faatogum nañu ci manifesté yi kenn ki Cheikh Ibrahima Koli la tudd dëkk ca Bignona balu fetal lañu ko dóor ci xol bi mu jaara ca faatu ci manifesté yi woon démb ca dëkk ba keneen ki ci des moom Baye Cheikh Diop la tudd ca garage mécanicien ba mu doon liggéeye ca yëmbal fa la ko balu fital bi ko faat fekk Vox Populi nañu ñi ñàkk gom seen bakkan ca manifesté yi ëpp nañu ñaar ñett lañu kenn ca Bignona kenn ca yëmbal ak it benn xale bu jigéen boo xam ne ci manifesté yi ca la koy agresseur songee ko jaara ca faatu ñaari xale yu góor yi faatu di Cheikh Ibrahima Koli ci la ay sambabo yi ay manifestant def mbooloo mu bari ñëw ak seeni xeer ak seeni ngànnaay taax mi nga xam ne fi la rajo Futurs Médias nekk ak journal l'observateur ñu fay sànni xeer tojote bâtiment bi caxat-caxatee ko boole cekki taal wata yi gaare woon ci buntu bâtiment bi mu di watab njaganjaay bu l'observateur watab makumba bey bu RFM tojit watab journaliste bii di Mamadou Seck ak beneen wata boo xam ne agence immobilière bii di Palais de l'Immobilier moo ko moom Le Quotidien nañu booba fekk na dëkk bi di tàkk ak di jax-jaxee fu nekk ak nu nekk le mandat nañu musiba mbaa bokkumba mu am ci réew mi La bi ne ko ba ñaar faatu ci ñu bari jëlee ci ay gaañu-gaañu lu mat fukki magasin yu osa gaañe caxat caxate nañu ko dajj ko la ñu fa fekk ñu jël ko yóbbu jàppante bu rëy it yéenekaay bi nee nañu moom la étudiants yi yendoo démb ak takk dere ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru autoroute à péage bi dañu ko bloqué woon songu nañu siège bu RFM ak journal bii di Le Soleil réew mi quotidien nañu ca Bignona démb ca manifesté yi am na fa benn ASP bu ñu fa naroon def jëf ju ñaaw essence lañu ko sotti ba mu tooy xepp bëggoon koo taal dafa rëcc ne kon tey ji kenn waxatu ko Sud Quotidien nañu ndax jalt jalt jéeg fitna ji dina fi am ne tey jii ci àjjuma ji ñoo ngi jëm ci àjjuma ju nara tàng ci dëkk bi ne muy waaye Y'en a marre waa Force démocratique du Sénégal waa parti Pastef ci Ndakaaru ak parti politique yi fare ci Front Résistance Nationale nee nañu dañuy amal ab doxub ñaxtu tey ci àjjuma ji ci buntu ministère de l'Intérieur fa la ñu fas yéene jóge dox ba ci buntu Assemblée nationale Quotidien nañu ñi fare ci opposition bi ak ñenn ñi ci société civile gi ñoo bëgg amal doxum ñaxtu boobee Vox Populi nañu waaye mbir yi naruta yomb ndax gaa ñi nee nañu dañuy marché fara force préfet bu Ndakaaru ne leen du ci dal sursoi nañu keroog ba Lat Ngoone Latiir Jóob taxawee ne maaloo du gis bi la mu juróon loolee la ñu a dundaat ci dëkk bi tey nañuy jàppal tànk Ousmane Sonko ak di ko jàppale nee nañu dañuy marché tey jii ci xolum Ndakaaru ñi topp yëf yi yëf yi lii lépp mu di mbirum Ousmane Sonko ak Adji l'observateur nee nañu juge bu huitième cabinet bi yoroon dossier bi di Mamadou Seck génn na ca dossier ba ma nga léegi ci loxoy doyen des juges Samba Sall journal bi nañu dogal bi day soog a siiw rek waaye ba ñu ko jëlee yàgg na te moom ci jëmi boppam di juge Mamadou Seck moo génne boppam ci dossier bi nekk rek àllarba ba mu dégloon Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon Sweet Beauté ba noppi ci la bindee moo tànn doyen des juges jox ko yëf yi li tax ba juge Mamadou Seck ne nañu ko génne ci yëf yi l'observateur nee nañu wax nañu ne ñaar la benn bi moo di ay menace ba ci moo di ay mbokki boppam ñoo sàkku ci moom mu génn ci dossier bi la si ne kay nañu président tribunal grande instance bu Ndakaaru moo jëlee dossier bi ci loxoy juge bu huitième cabinet di Mamadou Seck jox ko doyen des juges ba moom it sa joxe na ab mandat d'amener ngir ñu indil ko Ousmane Sonko sursoi nañu ko dina wuy ji doyen des nee nañu moo taxit ñoo ngi jëm ci bëccëg goo xam ne lu ne mën naa xew ci réew mi danañu jëli Ousmane Sonko yóbbul doyen des juges te gouvernement bi fasute yéene maye dara lise ko nañu Sonko bu bañee wuy ji des juges tey ji danañu ko yóbbu fala la force te bu boobaa bu moytuwul mandat dépôt ci lay mujj